salaamaaleykum mbokki internet mbokki Sénégal yu safoo di seetaan suñu seen bii di Buzz SN dal leen ak jàmm ci xibaar ki nga xamante ne nii moo di l'international Kara Mbodj doon équipe fii nii doon football euh, fii nii ci équipe nationale bu Sénégal moom daal tuddee nag ki nga xamante ne nii moo di Sadio Mané l'international Sadio Mané moom mi nga xamante ne nii moo di Kara moo tuddee Sadio maane doom doomam bii nii doomam bu góor bu bees bii nii tuddee na ko daal ki nga xamante ne nii moo di Sadio Mané mu nekk loo xamante ne nii rafet na trop ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax ñun teem lii daal doomam ji daal tuddee na ko ki nga xamante ne nii moo di Sadio Mané rafet na trop ndax moom ak Sadio am nañ ay relation yaa nga xamante ne nii ñoom ñaar rek ko ko xam ay xarit lañ yàgg nañoo nekk ay xarit ñoom ñaar dañuy déggante parce que kii mus na blessé ba Kara Sadio Mané moo ko jàppale aidé aidé ko financièrement ba mu faju moo tax lii bu amee dañ si kontaan trop trop trop rafet na trop rafet na trop trop trop trop parce que lii day gën a defar relation doom mi ngi tudd